salaamu aleykum wa taala wa barakaatu. ah salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa axlu làmb maa ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp man la général Momo di yëgal benn xew-xew bu rëy buy xewle 27 fee si arène nationale. bàkk ba jibati na làmb hmm, ku ko yëngal Fallou Ndiaye le jeune promoteur Ndiaye production mooy woo ñëpp. di leen benn xew-xew bu rëy buy xewle 27 fee si arène nationale grand Fallou Ndiaye moo ko organisé tegal fa mbëri 4 millions di fa jox ñëpp rendez-vous waaw mooy woo ñëpp samedi incha allah vingt 27 di samedi bi nga xam ne yàggatul trois jours moo ci des quatrième jour presque ah di woo ñëpp di woo axlu làmb képp koo xam ne làmb da lay bégal ngay safoo làmb di koy ndamoo di koy tiitaroo ñu ngi la fay woo. si fair play rek nak waaw general moom moo fay nekk si animation ba ak la lion de mbir far ba muy mbay ak sama jigéen di jox ñëpp rendez-vous di leen wax ne nag dina neex dina yëngu li xewoon kaw terrain gaal gi ay lancement la woon rek film bi ba foofu lay demee waaw ñëw dagg loge waaye jàpp sa njàmbur seetaan sa lamb mu jeex nga ñibbi si jàmm waa daw leen si jàmm dal ndànk nag daw ndànk dal ok ñu ngi woo ñëpp lu mo mo ngom du yoo do choc du yomb samedi inshallah bu ko ken raté à ne pas raté hein dañ andi lu lu bëree bari dal nañ andi 10 ciol nañ andi 20 mbang 30 ndeer lu nekk dinañ ko andi ñu ngi jox ñep rendez-vous dal leen wax né le 27 inshallah du yomb ma ngi ko jox ñep rendez-vous man général mo di ko jox gaay bi leen bëggé di bëggé amateur di bëggé képp ko dund laam maa di leen bëggé ba le 27 inshallah gaay